Ousseynou Mbaye dinañ ci ànd ay euh, leeral kon ñu ngi ànd ak ak yéen fii ci Kër Cheikh ci njaareem ci wàllu Ibrahima Fall ci nekkinam fii euh, ci njaareem. fii nag euh, la maam Cheikh dëkkoon ci njaareem euh, dëkk na fi lu tollook fukki at ak loolu euh, ñu ngi nii nekk di leen di won barab bi nga xam ne ni fii la dëkkoon gis nga tàmbali nañu nag dugg ci biir gis nga ñu ngi nii di gis ay bagaasam nga xam ne ni lii yëpp alalu maam Cheikh Ibrahima Fall ay bagaasu boppam la yoo xam ni moom la nekkaloon fii ci njaareem ginnaaw bu mu fi jógee nag bagages yaa ngi nii moo taxit it mu nekk tamit loo xam ne lu jafe la moo tax Serigne Cheikh nga xam ne tey moom moo yor bagages yi bëgg baaxee jaam ñi moo tax mu bëgg def liggéey bii nga xam ne ni ñu di ko jël nii ci caméra pour fas yéene ko woon jaam ñi ci àdduna bi yëpp xam ne nag euh, maam Cheikh bu mu fi jógee it euh, alaloom dara jógewu fi lépp lu mu fi bàyyi woon mu ngi fi euh, si njaareem lu ngeen gis ak lu ngeen gisul ndax gis nañu ay gaal am na yoo xam ne ñu ngi ci biir gaal yi tëju nga gis ni kon lii mooy alalu maam Cheikh Ibrahima Fall loo xam ne ni bàyyi na ko fii ci ginnaawam maanaam tamit nañu àndi ay leeral foofu tamit ndax maam Cheikh Ibrahima Fall bëri na jaar-jaar ci réew mi fépp fu mu jaar rek am na fa lu mu waaye nag njaareem fii nga xam ne fii la mujjee nag lii mooy lu mujje ci ginnaawam sax am na tamit sax loo xam ne ni sax doxantu na sax dem ba ci yeneen dëkk yu mel ni Touba Fall nga xam ne mooy jeexitalum euh, loolu rek euh, lépp nga xam ne ni gannaaw bu fi maam Cheikh Ibrahima Fall jóge sëñ Modou Moustapha Fall mu ko fi tamit euh, am na ci ay bagage yoo xam ne topp na ko sax ba boo demee sax ñàkk xel la sees bi seesu maam Cheikh Ibrahima Fall wala lii fii tamit nga gis ni kon lépp li ñu ngeen di gis nii ci ay bagage rek mooy bagage su maam Cheikh Ibrahima Fall yoo xam ne ni Serigne Cheikh Rokhaya Fall mu ko conservé tëj ko fii nga xam ne fii la ko maam Cheikh bàyyi woon ci njaareem. ñu suñ bët may ñu gis ko lu ñu gisul it xam ne mu ngi tëju ci gaali nga gis ni kon lii yëpp alalu maam Cheikh Ibrahima Fall mu ay bagaasam kon ñu ngi ànd ak ak yéen fii si Njaareem ci 29 septembre 2007 tombeek euh, ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor Serigne Cheikh Roqe Fall. am yéene bugg baaxee mbokku taalibe yépp moo tax mu yebal ñu ñu ñëw pour fas yéene wone bagage yi nga xam ne ni bagage yu maam Cheikh Ibrahima Fall defaat fi waxtaan tamit euh, ci wàllu taarix ak nekkinoom nga xam ne dinañ ko ànd ak Serigne Ousseynou Mbaye ci kanam tuuti dinañu àndee ay leeral tamit jàkkaarloo ak lal bi ngeen gis ni rek kon ki nga xam ne lii cosaan la gis nga kii tamit ci bagage maam Cheikh Ibrahima ci ay lal boppam la woon yoo xam ni mu ngi fii rek uh, si njaareem gisandoo gis nañu bay yi komot gis nga téere alxuraan yi lépp lépp loo fi gis rek xamal ni lu alalu maam Cheikh Ibrahima Fall la ay bagaasu boppam la moom moo ko fi bàyyi gannaaw bu mu wuyjee sunu borom gis nga rek teewul bagage yaa ngi nii ñu conservé ko denc ko tëj ko tëj bu rafet euh, mu nekk ay barabu barkeelu barabu ziyaarukaay moo tax Serigne Cheikh Rokhaya Fall te fii agsi fi jafe na lool ñëpp mënuñu fee agsi moo tax Serigne bi euh, am pour euh, rek jël ko nii ba nga xam ni képp koo xam ne ni gis na ko rek euh, ci télé ak ci caméra gis nga gaal yaa ngi nii ngeen gis ni kon nga xam ne ni kii gaal yu euh, cosaan la gis ngeen ba ci super yi yëpp euh, nga xam ne nii ay super la yoo xam ne nii lépp alalu maam Cheikh Ibrahima Fall kon ñu ngi ànd ak yéen fii si njaareem ci kër Cheikh ci biir ni këram néegam sax laa mën a wax ni fii nga xam ne nii mooy baragu ndànd nga xam ne ni fii tamit nga xam ne lañ ko mujjee fekk nekk ci kanam tuuti Ousseynou Mbaye dina ci andil ay leeral. ñu ngi nag jàkkaarloo tamit ak nataalu maam Cheikh euh, Serigne Touba rek fii ci biir euh, baragu ndànd bi rek kon ñu ngi ànd ak yéen ba léegi fii euh, si njaareem ci kër Cheikh rek ci kër Cheikh Ibrahima Fall ci boppam ñu nekk di leen